rap nekk ci live que ñëpp dañu war a live you know situation yi ñuy teg kaana yi ñu mun ci difa live yow amoo ko tu vois foofu wuuteeg gis nga nu ñu day yëpp members yëpp dañu yëg ci concert ku nekk yor mic tey boo indoon benn Alien sax mënoo ko <laughs> mënuñu yëg ci aw seen ku nekk yor mic Alien Zik wuute nga leen ëpp mënuñu yëg ci seen Sénégal mu am nombre de mic yooyu sept personnes doo yëg ci seen fekk fa sept personnes tu vois fii da ci sen fekk fa partout da ngay gis xoolal da ngay gis euh, monitor yaa ngi partout xoolal lii <laughs> lii bu rëkkee nii tey lii bu rëkkee rek da ngay yuuxu lii yëpp ay baafal la dëkk day mel ni lépp ay baafal la xool lii lépp ay baafal la ci kaw partout lépp ay baafal la yi suuf ay baafal la fële ay baafal la fële même ci biir public bi xoolal fële ay baafal la mun naa leen woon donc fii nii tey nit mënul taxaw fii di fi def play back fii nit nit nit mënul taxaw fii dafii def playback fii everything is you situation yi ñuy teg artistes yi <laughs> mais sawaay lii sénégalais boo ko fi yéegalee sawaay da da ñu américains yi la ñuy yor kii américain du yor lu mel nii xoolal baafili ñu day xoolal baafili ñu day xoolal retour yi xoolal fu ñuy fu ñuy fu ñuy jam si retour yi xoolal xoolal baafli xoolal ba ci suuf lii lépp ay baaful la lépp tout lii lii ay lumière la mooy son et lumière ngi spectacle bu day nii spectacle bu day nii saa yi doo fi yëgal sénégalais mais est-ce que artiste sénégalais bi ngay bugga a comparer parce que Kaane bi day live nga ne yow artiste sénégalais bi dafa war a live est que ñoo bokk situation est que artiste américain bi li c'est impressionnant c'est impressionnant mais mon mon maa ni nga xool baaful yaa ngi nii ci kaw baaful yi bëj fii nii xool xool baaful yi xarmoon la xool baaful li li <laughs> ay baaful la yaa ngi gis baaful li ay baaful la yow fële ngay dóor xoolal baafle yee malgré ni ñu bëree lépp mais fii ci biti sax dañuy lonk ay baafle xool leen fële baafle yaa ngi ne le donc munuñu munuñu bokk quoi <laughs> munuñu bokk comme sénégalais yi nga xam ni artiste sénégalais ñu rey seen bopp di leen jox di leen jox lu ñu yor ñoom ñu ñu koy xeet mais lii yëpp ay sonor la lii lépp sono la fii mbedd xoolal sono bi xoolal lii lii xoolal sa kii baa ngi ne spectacle baa ngi ne mais xoolal xoolal sono bi xoolal lii sono la xoola fee lee sono la li ma lay wan nee fee sonu la lii sonu la xoola sonu bi xoola xoola te pourtant fële la fële xoola concert fu mu ne xoolal yow da ngay nekk fii jarul sax ngay ngay ngay déglu waajee di wax est-ce que ça va fii ngay taw fii fii ci biir public bi fii lii moom la moo tax dañu war a comparer lu comparable quoi mënoo jël CFA di ko dajale ak ay euro ak ay dollar xoolal lii baaful la lii ay baaful la lii ay baaful la lii rek pour sénégalais yor ko problème la da mën ngaa dem 10 000 sen Sénégal doo doo gis lu ndaw lii nii rek doo ko fa gis fekk xoolal strade baa ngi na le backstage baa ngi nii xoolal backstage bi terrasse bi fii lii baaful la lii tout xoolal fépp lañ sonorisé c'est-à-dire ñoom dañuy def live sonorisé la fii lépp un kilomètre de sonorisation xam nga loolu bokkul donc pour wax ne yenn sénégalais yi nga xam dañu toog Sénégal xam nga di seetaan ay MTV di seetaan ay Trace TV di gis yor mic di rap ñu ñu non sénégalais bi kii non live la ñu wax a Kaane xoolal kaana bi day live Kaane bi situation bu ñu ko fa teg yow tegoo fa rappeur sénégalais bi <laughs> tegoo ko fa. tu vois situation bi nga teg kaane bi yow tegoo te bu bu bu peuple américain bi teg kaani bi ba mun a exprimer wu ba mun a exprimer selfam mais tegoo fa sénégalais bi sénégalais amul amul loolu bu canadien bi am boo di ko mun a rabee di mun a def live yow tegoo fa sénégalais bi donc gars boo réclamé da ngay réclamé loo jox waa ji kenn munoo jox waa ji dërëm ne ko da may indil saako ceeb man ni ko da koy sàcc bu la ko indilee rek da ko sàcc munoo jox nit munoo jox nit cent franc xam nga boo paree di ko réclamer benn produit bu mille franc munu nekk. donc ñun ñun suñu musique la ñu war a xool suñu musique la ñu a xool moyen logistique yi la ñu war a xool tu vois financement yi la ñu war a xool artistes yi ñu war a dimbale pour ñu mun a dem lañu ñu war a xool mais Sénégal da ngay nekk foofu di nekk benn MC mais sa doo am gouvernement du la dimbale ci dara. gouvernement du la dimbale ci dara tey dib lu mu am ko si moo ko liggéey. lu dip am kus néew amul un franc bu dugg ci dip fii fii nag gouvernement bi dañ lay jàppale peuple bi dañ lay jàppale ñu nga dëkkal dañ lay jàppale boo génnee CD dañ koy jënd ku jënd CD mooy wane ne mi ngi lay dimbale mi ngi lay jàppale mais boo defee ab sa CD du jar say du duñ ko jënd say dañ koy piraté pour nga dugg ci benn kër fekk fa benn sound original wala CD original c'est tout un problème da ngay génne ñu piraté gouvernement du la soutenir kenn du la soutenir mais kooku <laughs> loo ci génn rek sa sa sa sa ngóora la sa njàmbaarte la mais du sa environnement joxu ko sa paysage joxu la ko sa gouvernement dimbalewu la subventionné wu la jàppalewu la fii nii tey jii Canada gi ma lay wax ni boo fi amee benn boo boo préparé benn produit nga dem demander subvention mais mun nga am bàyyi cinquante mille dollars pour génne benn album ay artistes def nañ ko fii nii dem préparé seen album ne dañuy génne album dugal projet boobu noonu am soixante mille dollars soixante mille dollars ñu jox la ko booy pour benn préparation album ay plus de euh, euh, trente millions ñu jox la ko pour préparation album ak ay concert mais <laughs> gis naa fi ñu li ñu ko jox si ay subvention gouvernementale yi ñuy jox ay artistes donc possibilité boobu ñuy am ñun amuñu ko ñoom amu ñun ñoom lu ñu am ba war a mun a nekk à l'aise ba mun a yor ay salle de studio di war a mën a ay salle de spectacle wala mën ñu yor ay salle di di di répéter tous amuñu ko c'est pas la même chose donc <laughs> euh, nit daal saay gis nga Sénégal ah ñu leen fa jox rek nañ nañ nañ ko doyloo que artiste bi ñëw def playback wala live nañ ko doyloo parce que ñoom joxuñu artiste bi loolu tax ñu leen di koy delloo en live joxuñu leen ko joxuñu leen ko moo tax dañ ne nag bu ñuul boo ci amee soos bu weex fabal artistes yi dañuy galérer pour pour en plein désert dañuy galérer comme des ours pour mun a teg dara pour mën a ñëw am lenn lu ñu teg ci loxo sénégalais yi rawatina rab bi rab bi moo gën a souffrir rab moo gën a souffrir ci ci ci ci musique Sénégal rab moo gën a souffrir tu parce que artistes ay self made man lañ ay self made man lañ lu ñu am ñoo ko ñafel seen bopp lu ñu am ñoo ko ñafel seen boppu li ngay gis nii tey jii soirée bi nga xam ne jox nañ leen ko keroog ci ci festival euh, fête de la musique mais <laughs> Chaim Thiamba ci daj boo ko laajee ñaata fan la toog na nalaw ko danaan la ta mun na la une semaine mais fii ki koy organiser nekkul fii xoolal ki ki organiser affaire bi nekkul fii non kenn du ko ñu koy organiser ñuy organiser lii duñ taxaw fii amuñu jot bii dafa am ñuy gérer logistique bi ñuy fay ñu gere sécurité bi lépp fu mu ne ni ku ci nekk am na lu nga gérer mais bu doon Sénégal la nga def nga def lu mel ni mais sa waay ki koy organiser mooy taxawaalu foofu parce que bu bu bu sàgganee sax du am lu mu bëgg ki koy organiser mooy taxawal ku koy organiser sax mooy jël maay bi naan yoo yoo yoo allo allo allo pour xool ba xam maay bi baax na <laughs> mais fii ku koy organiser du fi ñëw amul jotam ku ci nekk yaa ngi am na lu ñu la jox ngay liggéey xoolal ñu la ñu ngi defar fay estrade ba ne le estrade la fële ngay gis ne estrade tu am ñoo xam ne ñu ngi defar fii paysage fii fu gars yi war a toog backstage bi terrasse bi ba ay douche am ay douche ay ay douche cabinet ay douche sawukaay lépp am na fi lépp lépp lépp ils ont tout préparé lii la ay douche la ay douche ku saf saw doo saf doo saw ci miir ku saf saw doo saw ci ruq gis ay douche dañu ay douche donc ñun moom ñun dañu am problème mu sax courant ñun ñun courant bu mat sax dañ ko am <laughs> problème mu courant donc euh, vraiment euh, il faut gars joxaat cër artistes yi il faut gars yi respecter artistes yi il faut gars yi xam ni artistes yi ñi ngi rayante yi ñi ngi def lépp lu ñu mën malgré les maigres moyens ñi ngi góorgóorlu ci loolu moo tax gars yi dañ leen war di jox cër mais c'est très facile nga toog fu nga toog di critiquer rek quoi yow xamoon nuñ euh, organiser euh, concert bi xamoo nu lu mu ci daj xamoo ni ki koy organiser sax nalawul xamoo nga toog fu nga toog rek yow waaye mais ñu live la ñu kii ñu di réclamer loo xam ne yow defoo ci dara tous dafoo ko ci bu waa ji gën génnee album doo ko jënd bu bu bu waa ji soxlaa fu mu répété doo ko abal bu waaji doo ci def dara yow ne war a pour pour pour critiquer critiquer critiquer critiquer fii ñi ñi ñi organiser ñi organiser doo leen fi gis fii ñi ngay gis ñi yëpp ci doo leen gis amul kenn ku fi organiser ñi fi ne ñëpp ay liggéeykat lañ ñu indi ñuy liggéey di leen defaral ba ci xoolal lépp li li nga gis tableau yi tableau d'art yi yëpp dañ ko ci def c'est bien préparé jël ay restaurant ci kaw gars yi ñu bëgg a festival bu kawe gars yi bëgg a coob nekk nii donc il faut que gars yi comme nu may wax rek c'est aar bi mënul jàll bu fekkee gars yi amuñu benn respect buñ buñ jox seen seen mbokk artistes yi ba pare di leen dimbale di leen jàppale di leen jàppale di leen promouvoir di leen propulser di leen may force di leen may doole bañ leen a teel a naxasal bañ leen a teel a wàcce bañ leen a teel a xeet bañ leen a teel a critiquer critiquer ñu critiquer critiquer c'est trop facile. critiquer moo gën a yomb loo gis taxaw nii rek ne lii baaxul waa non mais gaañ ñu laaj la ñu wax ci benn scène boo xam ne ñaari maag la. benn scène bu huit heures de ñaari maag wala benn scène bu huit heures de temps ñetti maag xoolal ñii ñii liggéey gars yi liggéey fii. li lépp ci festival bi la gars yi ñu ngi liggéey fii xoolal ñu ngi liggéey <laughs> tey tey Sénégal nag moom waaye waa ji day ñëw di xool day ñëw di xool ba xam est-ce que. gars dañuy liggéey lii musique bi musique bi fii day joxe c'est industrie la c'est des millions de dollars dañuy indi ay menuisier métallique menuisier bois indi lépp xool leen xool lii lii liggéey la booy indi kuy nettoyer indi lépp la ñuy indi ils mettent des millions et des millions gars pour mun a def benn festival lii du caaxaan gars lii du caaxaan lii da nga xool lii xam ne lii du ay dix millions cinq millions lii c'est des millions et des millions de dollars lañ ciy def ñoom lañ ci def pour mun a satisfaire seen public pour mun a festival bi gratuit la mi ngi nii gis nga ni ngeen gis ci mbedd mi la gratuit mais dafa am lan dafa am financement festival bi dafa am financement ñi def nañ ko depuis des années ñu ngi koy def di ko maintain parce que amuñu problème mu financement gouvernement bi day jël ay milliards yi milliards yi milliards yuñ budgétiser ci culture kese ci culture kese ñun ñu ngi nii dañoo jël ñetti ñetti branche yoo xam ni bon duñ ne bokkul ñoo bokk benn mond mais benn nit mënu ko téye dañu lu ñu concentré loolu noonu nit mënu ko téye benn nit mënu ko téye ministre mini benn ministre boo xam moom mooy gérer culture. culture nga xam ne ak culture ak branche yu mu dajale nga bëgg a gérer culture bugg cee boole dajale jeunesse bëgg a jël jeunesse bëgg a jël culture. bëgg a jël non. you wanna <laughs> tu nga bëgg a jël bëgg a jël culture bëgg a jël sport bëgg a jël jeunesse mais sa waay nga jël nga jox ko benn nit mais kooku sa kooku bu bu dee da ngay xaar ay résultat da ngay foo rek kooku du la mës a jox résultat du la mës a jox résultat munu ko nit benn nit munu dajale culture jeunesse sport mais sa bu ci nekk rek branche bi dafa doy waar sport rek nu mu day culture rek nu mu day jeunesse rek nu mu day nga bëgg a jël ñett yëpp jox ko benn nit mais sa waay kooku bul ko xaaral résultat munu ko am moo tax ndaw soosu du la fi indil benn résultat dara du ko fi indi xam du xam sax fu muy taxaw ndaw soosu mënul dajal mënul am résultat moo tax xaare ma ko sax résultat tey quasi inexistant inexistante quasi inexistante ministre de de de de l'éducation non euh, ministre de la jeunesse ministre de la santé mu dajale jeunesse santé sport mais culture jeunesse culture sport mais sa waay nañ bàyyi caaxaan yi quoi nañ bàyyi caaxaan yi kooku munu ko kooku day échoué lamentablement laa la wax munu ko mënoo dajale culture sport jeunesse sa waay même bu dee dañu am na am na lu ñu bokk quand même <laughs> mais mais culture sport rek dafa rëy sport rek rek ñëpp